si signé fandar jiijo wax ni yàlla du buur ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp signé fandar jiijo wax ni yàlla du buur ñëpp lekk yàpp xaj ñiin ko ku baayu Seex Abdulaat sab si ñaati ranga fana Seex Abdulaa borom belel aa ah, bay laat Seex Abdulaa borom belel aa ah, siidéeg seexunaak am sa toog mustafaak murtalaak moodu nan bàyyi soxna may borom beleel sëñ bamba sëñ bamba sëñ bamba la mu tontu biro ba fandaar moom rek moom rek moom rek maami sëñ mbakki soxna moom rek moo ko yóbbu maa yomba gaañe weet ñoom la nu bàyyi fii ñu toog fii kenn demut kenn demut kenn demut kenn yóbbu doon imaam Jaar ay Serigne Touba maami Alaaji Baara fi mu dem ba am li mu am moom rekk moom rek moom bu rek moom rekk ku fa dem di nga am li mu am xaw kenn du fa dem kenn dem kon kenn du doon Maam